ñenn ñi tamit du mhm. li nga wax li président dafa dafa am solo parce que depuis ce matin euh, man maa ngi fi depuis ce matin mais on voit des délégations qui arrivent de partout gis nañu de partout. et c' est des c' est des parfois c' est des anonymes. Mhm. parfois c' syndicaux. Mhm. parfois ñu ngi yëngatu ci wàllu politique. parfois même dans la presse parce qu'on a eu à recevoir euh, Ibrahima Lissa Faye ce matin on a reçu également Bamba Kassé sunu kilifa ci wàllu syndicat Synpics ak ñeneen ak ñeneen euh, donc mi ngi noonu sant yàlla sant yàlla et te ci loolu sax wéetuñu ci mhm. euh, madame kon ñu lay ñu lay dalal bu dee mën nga présenté wu. ñu lay nuyu bu baax a man la bi Biteye mhm. maa ngi ñëw ci turu gëm sa bopp bu Malika mhm. Malika nag bu ñu nee Malika Malika rey na yaatu na dëgg la Malika de fi mu commencé ba fi mu terminé mhm. képp koo xamante ni kii tey jigéen nga wala ngay jeune wala ngay yaay ngay papa tey sa xol neexul ndax bu ñu nee des médias defe naa ne des médias ce plus pour Bougane Dadi mhm. des médias c'est pour les Sénégalais. Mhm. te tey dama yaakaar ne monsieur Macky Sall tey bu nee tey day xeex. Mhm. Euh, ñàkkum xëyu ndaw yi warta tëj loo xamante ne lii ay millions de personnes ñoo nga fay liggéey. mu nekk loo xamante ne lii neexuñu ñu jóg nag ñëw partager ko ak yéen. won leen ne ñu ngi ak yéen. ci euh, commencement bi ba fin bi. Mhm. te du ñu mës a reculer parce que bataille bi du bataille yu Sen TV. bataille yu Sénégal la. te amuñu feneen fu ñuy dem fu dul fii. Mhm. ndax heure bu ñu mhm. amee lu ñu naqari Sen bi moo ñu koy won heure bu dara xewee ci dëkk bi Sen bi moo ñu koy won donc yëf yi du yëfu Sen TV. ñu leen di ñëw pour soulager leen ànd ak yéen ci turu suñu futur maire bi nga xamante ne moom la ñu teg foofu muy mhm. euh, monsieur saw mhm. wax dëgg yàlla ah, Ndiogou saw futur maire nga wax de futur laay wax ndax ñeme naa li may wax man li may wax ñeme naa ko mhm. futur maire Ndiogou Sow mi nga xam ne frère Bougane la Bougane da ko rakk euh, magoo mu rakkawoo Bougane ñuy ànd ba dara nekkul woon dara man damay jàpp ne yéen waa Kër Massar ñu am couleur ngeen parce que déjà xam nañu Kër masaar ak jafe-jafe yi ngeen di vivre rawatina bu nawet ñëwee nii ak inondation yi yi foofu également gis nañu Bougane en tant que acteur de la société tout simplement dafa ay euh, yu am solo yoo xam ne peut-être tey jii moo tax ba euh, moom mënut a wéet ci yëf yi euh, d'autant plus que yéen yéen a ngi fi. waaw Bougane du ci wéet ndax xam nga lu tax du ci wéet. Mhm. Bougane dafa nekk xale. Bougane jëlul alalam pour di ko lekk. Mhm. def ni kaay leen ma jàngal leen noo leen koy amee. Mhm. parce que boo toogee ak moom wala nga déglu ay waxam def la naan. en tant que ngay jigéen ngay góor dama lay woon nan ngay def pour avancer. Mhm. ça fait que boo xoolee keroog anniversaire am bi ni mu demee. mu mosuñoo gis benn leader di an fête am. Mhm. ay marchand ambulant ñëw. di cotiser xaalis di joxe. Mhm. ay taximan di cotiser seen alal. ak coono bi ñuy daj ci tali bi di ko joxe. donc ça bi dire que Bougane moo nar a nekk suñu solution. donc dañ koy ñaanal yàlla. Mm-hmm. yal na ko yàlla busal ci pexe noonu. amiin amiin amiin li nga xam ne ñu ngi koy mëbal nañu xam ne nag. Mm-hmm. ñu bugaan xolu sénégalais yi la ñu laal. dëgg la mm-hmm. ndax ku xam heure bii ñu jóg. xam ne du heure u jóg. ñun ñëpp ay yaay lañu heure bi waroon nañu fekk suñuy kër. wallaay ma ànd ak sama jigéen ñi nga xamante ne. macha allah kay délégation ngeen def. tëdduñu nelawuñu. bañ ko yëgee ba nëgër ni donc nañu xoolaat seen bopp. te maa ngi rappelé 2012 Macky Sall ba muy dem. tey jii di président mu yegg si fii mu yegg si tey mhm. am na fu mu jaaroon mhm. ça veut dire que tey jii day média dafa bokk ci ñu ko yóbbu fii mu nekk mhm. tey tey jii bu ñu xoolee tey ba mu ba ñuy taxaw euh, place Obélisque mu naan génn leen génn leen ngeen ñëw jàppale ma génn leen la euh, euh, wàcce leen seeni lal moom yore mer gàddoom na rappelé wu tuuti xam ne ña doon bañ booba ñoo fi nekkaat ba nëgër et puis ñu ñuy toog nous faisons partie tout à fait donc vraiment pour ñu xamal leen ne. Mm-hmm. xeex bi du seen xeex.